parce que ñoom itamit tamit ñu ngi nii di génn ku moom grand yàgg ngeen sama pied waay D'abord par vous relater les péripéties de cette audience qu'on a remportée de haute lutte, de, euh, le renvoi que le, procureur de la République avait refusé Mordicus. Euh, nous sommes satisfaits d'avoir remporté cette deuxième manche, mais nous demeurons quand même euh, perplexes dans la mesure où nous constatons, depuis que l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 février dernier et qui a fait l'objet d'un renvoi ferme pour aujourd'hui, un empressement suspect du parquet pour juger notre client Ousmane Sonko. Cet empressement succès nous laisse entrevoir et suspecter à bon escient que le procès intenté contre notre candidat, contre notre client Ousmane Sonko, est un procès politique. Au-delà des aspects juridiques, il y a un agenda précis du, de l'exécutif et qui veut, je le dis crûment, qui veut après la tentative avortée, presque avortée je dirais, avec le dossier Adissar, de le faire condamner avec cette accusation de diffamation, cette accusation que je trouve parfaitement farfelue. Par conséquent, nous avons décidé de nous dresser, nous autres avocats, comme un bloc contre cette décision unique, cette tentative de retenir ce dossier alors que la jurisprudence constante des cours et tribunaux dit ceci. Un dossier qui a été évoqué pour la première fois peut faire l'envoi, peut faire l'objet de plusieurs renvois. Nous avons demandé le renvoi parce que il y a eu de nouvelles constitutions. Moi-même, Ousseinou Fall, j'ai été constitué par le, sieur Ousmane Sonko hier, hier nuit. Par conséquent, pour une bonne administration de la justice, l'avocat qui vient d'être commis, qui n'a pas connaissance du dossier, a parfaitement le droit de demander le renvoi. Et c'est la première fois, en fait, dans l'histoire de notre pays, qu'on assiste à, ces, à cette opposition farouche du parquet pour Par conséquent, nous doutons fort qu'il y a un agenda, un agenda bien déterminé, qui est là, qui est arrêté, qui est concocté par le par l'exécutif pour faire condamner le président Ousmane Sonko et le priver ainsi de ses droits civils ou politiques. Mais ça ne passera pas. La forfaiture ne passera pas. Présenté devant le tribunal, c'est pourquoi vous demandez des renvois à instance. Euh, vous savez, nous ne sommes pas ici à l'audience pour présenter des preuves. Le jour de l'audience, vous verrez ce que vous, ce verrez. Les preuves seront là. Vous verrez qu'en fait, cette accusation est tout à fait farfelue, que c'est une accusation qui ne repose sur absolument rien du parce que les faits dont parle Ousmane Sonko, ces euh, euh, dont parle euh, M. Maïnian, son ministre de tutelle à l'époque, Amadou Nyon, Amadou Ba, ont sciemment et délibérément violé les dispositions des marchés publics, les dispositions qui régissent la passation des contrats de marché public. Je ne... Vous Nous l'avons déclaré parce que nous, nous, nous, nous pensons que dans ce dossier, aussi bien, aussi bien euh, Mme Maïmaïnian et Amadouba sont responsables. Parce que à l'époque, c'est certes c'est certes Maïgnan qui gérait le dossier, mais il était supervisé par le ministre des Finances de l'époque qui s'appelle qui s'appelait Amadou Ba. Par conséquent, la présence d'Amadou Ba est tout à fait nécessaire parce qu'ils ont tous deux participé à cette fraude, à ce festin comme dit comme a dit un éminent journaliste de 36 milliards voilà on est en train de nous de, de partager hein le, le, la des détournements des, des enrichements illicites hein des ministres qui n'ont avec un individu qui s'appelle Macky Sall et bien vrai que ministre la sax moo déposé plainte contre beneen citoyen nekk un acteur politique du Ousmane Sonko. dossier bi ñu jébbal ko procureur de la République mu saisir benn service pour mu def enquête bi muy DIC BAG ñu def enquête bi jébbalaat PV bi ak dossier bi procureur pour mu yóbbu ko ci attakaay ñu convoqué ko pour la première fois le 2 février yéen ñëpp fekke ngeen ko ba ñu ñëwee février li ñu gis ñun par rapport ak suñu pratique fii si tribunal bi mooy dañoo gis ne dossier bi dafa am fu ñu ko jaarale foo xam ne méngoowu lañ fi ñu doon jaaralee dossier yëpp ndax gis nañ premier jour bi ñoom ñu pare pour àtte dossier bi alors que benn suñu client ñëwul woon te mënul woon ñëw parce que ku ñu convoqué wul mënoo ñëw si loolu laa jóge man interpellé président bi ne ko président yaa ngi def erreur parce que kii ngeen bëgg àtte yéegul ne da ngeen koy àtte bu ma ne nag yéegul dama ngeen dégg mu baax su ma ne yéegul ne dañ koy atte aajuwul que ne yéegul ne jour boobu lañ ko war a atte mais juridiquement si anam bañ ko war a yéegalee le atte gi dañ dañ ko deful donc dama bëgg wax ji leer si loolu ñu contraindre leen ñu renvoyé mais moom déjà bi muy renvoyé mi ngi ñuy xamal ne renvoi ferme la renvoi ferme suñu jargon mooy kenn mëntu ko delloowaat kenn mënu ko at euh, Dakar loolu jaaxal ñu parce que si jour boobu si boppam amoon na quatorze dossiers yoo xam ne yooyu yëpp da doon ñëw pour la première fois treize yëpp ñu dàq ko ba mu des ba Ousmane Sonko ñu ne nag lii nag dafa nduroog leneen alors bi ñëwee tey tamit li waral renvoi bi mooy dafa am ay avocat yu bees ñëw constitué wu te fii tamit pratique bi may wax saa yu amee avocat bu ñëw constitué wu am na sañ-sañ demande de renvoi surtout bu dee nombre de renvoi yu matagul ñett c'est loolu mooy loolu mooy pratique bi tey moo doon deuxième évocation boobu mooy premier motif bi deuxième motif bi mooy défense bi dafa ne am na sañ-sañ si liñ koy toppee mais mu entendre ay témoins alors si loolu may leeral parce que dañu naan koy toppee dafa am nu ñu organiser mode de preuve yooyu mooy li ñuy wax la preuve véritatis ma ne leen déedéet lu tax loolu duñu ko mën a opposer benn mooy ki ngeen di wax cité wu leen ko citation bi ngeen def respecté wu leen délai dans ces naka ngeen mën a waxee ne dafa forclos boobu mooy benn ñaaral ma ne leen mais da ngeen si benn infraction boo xam ne du infraction diffamation wala injure mooy li ñuy wax faux faux infraction de droit commun la de sorte que Ousmane Sonko am na sañ-sañ ak ñi koy défendre woo képp koo xam ne war na mën a leeral liñ koy tuuma te loolu bañ koy wax dañoo invoqué constitution invoqué code de procédure pénale invoqué même pacte de déclaration de droits civils et mu nekk ay textes yoo xam ne amul luñ si laam-laame malgré loolu yëpp gis nañ ne président dafa jógoon pour retenir dossier bi parce que mi ñu doon wax yoo xam ne talul tamit suñu xel ndax man mënuma comprendre ki nga xam ne mooy àtte fii te xam naka lay àtte dossier yëpp ñu jàpp ne dossier bii du dossier politique dossier bu normal la ngeen ne euh, avocat yi maa ngi mettre à votre disposition le dossier ngeen xool ko ndax dossier bi ça tient sur à peine loolu nag mu xaw a doy war parce que nag nit damay bëgg nag bu ñuy wax nag di jooy ngeen déglu lu ñuy jooy parce que mënuñu ma comprendre ñu ne dossier bi dossier bu normal la comme yëpp ñu ñëw nañu dossier de moins de dix pages la am ngeen sañ